salaamaaleykum mbokk internet Saloum Actu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag dañ ñëw fii M3 unité 11 ñëw seet si benn kilifa sëriñ Cheikh mbay gëm naa ni kenn dootu ko laajteeti sëriñ Cheikh borom njàkk yi Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum euh, madame Sarr maa ngi lay fay di nuyu waa Saloum Actu seen kilifa di suma xarit eh, yàlla boole ñu ci jamono boo xam ne xaw na yàgg lool dem na ci at yu takkoo takku takku takku kon maa ngi ñaanal yàlla site bi ak waa site bi yëpp fi ñuy dégg site yëpp yal na leen fa yàlla rombale te lépp ànd ak njariñ ci barke Yonent bi sallallahu alayhi waa jërëjëf sëñ Cheikh kàddu yi rafet na macha allah sëñ Cheikh tey dañ ñëw fii seet la ndax dafa am loo xamante ñu koy dégg muy reen leg reen yi nag moo ñu fi andi tey jii maanaam dellu cosaan dañuy wat cosaan waaw ndax dellu cosaan jot na te am na lu ñuy dégg ci wàllu reen yi waaw moo tax tey daal ñu nañ ñëw ñëw seet pour nga wax ñu ci reen nga xamante ni daal lëmbe na jamono waaw macha reeni moom wax dëgg fa yàlla ñëpp yëg nañ ki ñëpp dégg nañ ko reede daal moom lëmbe na dal. waaw te nga wax ñu daal ci li nga xamante ne mooy njariñu reeni waaw waaw jërëjëf soxna si xam nga dañuy wax ne lu ay di jàmbat waaye dama ne lu baax di njàmbat te lu yëngu lu ni li ko yëngale ko ëpp doole da nga wax sànq ci sa biir wax ne dellu cosaan jot na yàlla sampal ñu cosaan loo xam ne mm-hmm. dañ koy dimbandekoo pour di renforcer suñu wérgu yaram di renforcer suñu katan di renforcer suñu santé fa tabarakallah li nga wax deug la ndax yenn jigen ñi ñu manki wuñ dara way amuñu dara manki wuñ dara moy suñu jëkkeur may nañu auto way safuñu dara suñu jëkkeur may nañu kër waye saful ñu dara suñu jëkkër may nañu xaaliss waye saful ñu dara dafa am lu manki lo xamne ne neexu la wax lolo waral ciow yi ci biir neegu sey yi ñu ngi dekké mer ñu di leen wax ne da ngeen tang xol fekk ñu xol ñi ñu ngi jappanté guddii ak bëccëg mais xamuñu lu tax ñuy jàppante ak

ñëpp war a daw dellu cosaan ndax ñépp a jaaxle te nit ku nekk li ko yàlla séddi da ko war a fonk da nga juddu fekk garab gi nga ne garab gi man li ma ci taamu mooy këriñ ak matt fekk am na njariñ lu ëpp këriñ ak matt te mooy góor ñiy jàmbat tële li leen di dimbali di leen dooleel mooy lii garab pour doole ren mo ci upp doole xam nga garab ni mu amé doole su ko ngalaw uppé bayiko fa su ndox ñëwee bayiko fa la kay dolel di ren te yow garab upp la doole kon warna war nga xamné garab liko ko téye bu lu mu bari bari doole du ko gawa daané yow so xalaatoon rek ci sa xalaatu bop war nga dawal sa xel ne mais garab gi li ko téye ba gaawul daanu vraiment xam-xam war naa mun a génn foofu moo tax ñu indi reen yi tuddee ko dellu cosaan senegal ñenn ñi ñooy foowee cosaan di ko xeebal nit ñi waaye yàlla xeebalul kenn cosaanam ndax balaa ngay ñëw lala la pareel say garab tegal la ko ci sa réew tegal la ko ci sa gox nee la de ko dimbali mudi la dimbali topotol garab garab topotol kon tay buñu nit ñi di sofantal ciosan dañuy xamné xamuñu ciosan Ta arab day wax wa mal khabaru kal iyan wi di gis bokul ci ñun ñi dëkk ci kaw gi ci saalum mag ci garab yi juddu ci garab yi ndax suñu wayju radhiyallahu dafa nekkun yalla may ko xam-xamu garab lol suñu mam nona yi di royat ba ci man te senegal salum bokk nañ ci ñi gëna xam garab fa ñu ni itam yalla xassal ñu ci ngir yalla gu mag gu xam-xama maccion ci garab mu jangal ñuko di suñu wayjuru bop nyolol, ñu lol bëgg ñu lol ba aduna yëpp mat ki sédé kon defe naa ne boo ma laajee ci cosaan dinaa ci kontaan lool lool lool te ku fi ba cosaan rek réccu léeg-léeg li ñuy foowee ci Sénégal soo demee ca bitim réew ñu ngi ne ngéej jot ci kon nga xam ne jege kiiraay la da ngay sësee garab gi xeeb ko ki ko sori ni ngéej jot ci fa tabarakallahu góor gu sàgganee nag garabu cosaan yi dinga nga gaaw a wàcc lal wala sa man man di dellu ginnaaw lu tax dafa am tooke joo xam ne lu dul garabu cosaan munu koo raxas mu wàcc tooke jooju dafay wàcc ci kanamu góor su ko góor gi raxasul ba mu set day gaaw a wàcc lal balaa màgget dina tële kasaalika tooke yooyu noonu lay wàccee ci kanamu jigéen ba nga xam ne buy sëy ak boroom këram day gaaw a yëg mettit day gaaw a booy mooy li ñuy wax infecté aussi ay picc day gaaw a génn su boobaa daanaka du bëgg ci say dara loolu nag buy dal góor di dal jigéen ku góor ki bëgg sey ku jigen ki bëggul sey wala ku jigen ki bëgg sey ku góor ki bëggul sey digënté boba ñaan mënu ci dara delu ciosan jël reeni cosaan yi ko te gis nga suñu magi salum yi dañu fonkon ren lol lutax mak mo ci min mu ngi yore li ñuy wax ñak motax dañ dan dundu téméri atak lu top di ngénte di am doom seen kër di neex xam nga xel nanguwul kër oto yaa ngi gaare macha allah kër gaa ngi rafet kont baa ngi fees te xolu ko jigéen ki mënta neex guddi mënta neex bëccëg faj nga rab ba sonn neexle nga ba sonn lu ne def nga ko waaye dafa am loo xam ne bànneex boo xam ne oto mënu ko remplacer. kër mënu ko remplacer kont bu fees mënu ko ràmpalaasi wax ju neex mënu ko remplacer loolu nag coow li ma dégg ci réew mi ak ci dëkk bi dara mënu ko saafara lu dul daw dellu cosaan képp ku xeebal nit ñi seeni cosaan alag nga askan bi ndax kat ñun dañoo xam li ci cosaan ku ñu seetaan xam fa ñu dëkk seen kilifaak sit bi fa tabarakallahu ñu bokk gox maa ngi koy nuyu ci biir émission bi ah sës ca garab ya juddu ca garab ya di gis li garab di def ci nit kon yaakaar naa ne bu fekkente ni wax ci cosaan jot na yàlla may la xam-xam bu màcc ci cosaan ndax kat ni ñu jàngee téere yi di ko jàngale fa tabarakallahu nu ko raw lañu ñu mën a jàngee garab di ko jàngale xam nga tax wolof day wax ne golo lu mu def boole ci yéeg man garab dafa ma topp te mun naa wax ne fa ma toppee li ma ci takk laa mun a wax mais li ma ci takkul munu ko wax li ma ci takk mooy lu mu gàtt gàtt sama ñeenti maam ci ginnaaw ñoom ñëpp seen xam-xam dafa màcc ci cosaan te mooy wàllu garab ay rëbb lañu woon ku nekk xam na rëbb ni ngay xamee garab parce que rab yi nga fekk ci àll bi ñoom ñoo lay jox xam-xam ci reen yi di la jox xam-xam ci xob yi di la jox xam-xam ci xas mi di la jox xam-xam ci sunguf yi su ko defee loolu boo ci màggee juddu ci nàmp ko jàng ko kële nàmp ko juddu ci màgguwul ci toog fa mu toog naan bàyyi leen garabi cosaan yi dama ko naan sa question du loolu li nga waroon wax mooy ku ci jëfandikoo garabu cosaan demal ci ko ko xam te loolu mooy alxuraan alxuraan dafa wax ne fas al bihi xabiran sooy laaj lu ne demal laaj ko ña ko xam looy uti lu ne demal ca ña ko yor te xam ko loolu mooy question bi mais question bi du askan wi ni yàlla moo mooñee cosaan ci seeni deret nga leen bàyyi leen cosaan du ñu bàyyi cosaan yow lañu bàyyi xam ne cosaan yàlla moo ko mooñaale ak nit nit ci suuf la bàyyi ko minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yow nga bàyyeekoo ci suuf garab jóge ci suuf ñi seen xam-xam màcc ci fi ngeen bokk bàyyee ko mu ne la reen yii góor ñi tële reen yi moo baax ci ñoom ñi bëgg a yokk doole reeni cosaan yi moo baax ci ñoom mu xam ko dëkk ca kaw ga ca Saalum xam-xamam màcc ci mu jàng ko donn ko ci ay maamam bu la déggee yow nga ne seeni reen yi nangam ak nangam dañuy wax ni boroom xam-xam mu ngi di xam am xam-xam feeg mu ngi wax li mu xam mais keroog boo wàccee sa ànd da ngay dem ci andu jambour kon mangi ngi wax ne jambat li matu ko woon solution bi moy lan daw delu ci ciosan ciow li beuri na negu sey na xarina tas gi beuri na te lepp kenn munu ko wax te buy fukk jurom ñent yeb bo gesto walu negu sey la loolu la ci ciosan soxna si macha allah kàddu yi rafet na trop macha allah kon nag mbokk internetu Saloum Actu ñu delluwaat cosaan ndax dellu cosaan jot na waaw ndax seen cheikh lim fi wax lépp macha allah lu am solo la ndax euh, njaq yi boo ko gisee macha allah xam ni lépp cosaan la waaw man ko lépp boo ko xoolee rek lépp cosaan la ndax reen yi baax na ci góor gu tële te macha allah nag du ci góor yëpp ak jigéen tamit. n'est-ce jigéen nit da koy jël waaw jigéen nit da koy jël ni ko góor di jëlee noonu la ko jigéen di jëlee waaw ndax lépp rek ci wàll cosaan la kon nañ leen delluwaat dem cosaan ndax li fi maam bàyyi woon tamit ba tey mi ngi fi waaw li fi maam bàyyi woon ba tey moo ngi fi kon nag nañ leen delluwaat cosaan ndax reen yi daal wax dëgg fa yàlla na mel ne jamono yéeg na fu ne ñu ngi ko fay laajte fu ne ñu ngi koy naan reen yi reen yi moo tax tey daal ñu ñëw seet si Serigne Cheikh mu wax ñu ci wàll reen yi delluwaat cosaan waaw waaw sëñ Cheikh ah mbokk internet yi Saloum Actu ak mbokk yëpp ñi ngi laaj seen Cheikh fan la nekkoon jamono yi yëpp ndax seen Cheikh tuñ la gisatuñ la waaw man daal nag ñi ne ma boo àggee ba ci seen Cheikh na nga ko laaj seen Cheikh fu mu làqatu woon waaw. waaw jërëjëf xam nga at yu xaw a limoo ngi ni ñu bari gëj nañ maa gis sax ci waxukaay yi fa tabarkalaaw yéen dama sawar ci dalal leen eh, ndax dañoo bokk ak kilifaak kër gi gox bu dëkk suñu bàyyeeg suñu maam ne ma dinaa fa ebal gaañi sax xaw naa mu ne ma il faut ma ñëw ñu seet si la ndax yow da nga war wax ñu bari gi ñin maa gis ci waxukaay yi ngir ñàkkoon a nekk ci réew mi doon nekk lu bari ci réew mi ah, lii itam chance la ci réew mi jamono bi ñu nekk fi sax ñu mën am ci ren yi waaye du doy bitim te loolu ñepp mat nin ci seede sank da nga wax lu am solo te moy li ciosan kessé la ki naturel la li ñuy wax kese ay kessé mom la raxul dara Hatta yi ñu ko takkee sax mbiram ciosan la raxul dara te lepp luy dosas xam-xam ca la ngay def lolay dosas sa xam-xam moy nat moy dosé mooy limité mooy léemu mooy léem lépp a ngi fii mu ànd ak nag xam-xam bu wér mu ànd ak xam-xam bu wér ndax ñun man sama waajur bi ma meññ jàngal ma reen yii dafa nekkoon koo xam ne li mu xettali ci réew mi ci nit mënuma leen di lim ci diggante dof yi ci diggante ñi feebar ba pare woon yàqu am na ku ñëw suñu kër def na fa ñaari at waa kër ga yépp xam ko ñeenti jabar la yoroon tële mënalul dara waa kër gi xëyee yeewi ñépp ñëw ci suma kër baay góor gi na ko ci kaw nag nga nangoo muñ parce que nit ñi dañoo yàkkamti te kuy faju ak kuy ut doole annal quwwata lillahi jamian yàlla rek a am doole yàlla nag booy sàkku ci moom dara doo yàkkamti baykat bi borom bi daf la ne boo suulee sa gerte sañuloo ko wax na ko saxal léegi wala mu génnee la danga koo sañ yow lan moo la war suulal sa gerte toog dem xar yàlla gàncax gi ni muy màggee ci coobare suñ borom la dangay dend ak nit tool kii màggale léegi yow nga yéex a màggale reen bi kii da koy jël léegi am li mu bëgg léegi léegi. kii yàlla ne ko yow trois fois nga war a jël kii yàlla ne ko yow deux fois nga war a jël kii yàlla na ko yow traitement nga war a def kon ni baaraam yi uutee ñi noonu la ñu uutee ci lépp ak fépp ñëpp kon reen yii fi mu bàyyeekoo ak ñi mu bàyyeekoo ba egsi ci ñun dama ne ñooñu li ñu defar ci nit ci réew mi kenn mënul koo wax pour ñëpp dégg suma baay Alaaji Sëriñ Mbay medina Serigne mbay commune ngayen sabah wax day leer ci rew mi lañu dëkk koku moñu jangal garabu garabi kiosan yi nga xamne nit da na tas kërëm ñew nga tok muñ mu toppatoo la ba sa kër jagaat bo delloo ngénte am na koo xam ne ki ma di wax bi mu toge suma kër bay ba gi toppatoo ko ba yef ye jagaat bi mu delloo dom jëm jëk am sama soxna papa lako ko té lolu ñepp madin ci sédé kon dal damay encourager nit ñi né leen daw leen ngeen déllu ci waye su ngeen di déllu cosaan dem leen ci ham. bu ngeen xam mu dimbali leen ndax réew mi nonu lako ko bindé moñalé ko ak cosaan bari na musiba yoy dégg ba cosaan rek ko waral bari na dé yoy dégg baye cosaan rek ko waral bëri na feebar yooyu dégg bàyyi cosaan rek a ko waral bëri na jafe-jafe yooyu dégg bàyyi cosaan rek a ko waral soo amee cosaan lu baax nag man duma nangu yow nga yàqal ko te àdduna fa man saa afal yoomin wa man saa afal yakfur suñ borom daf ne man sax mi bind cosaan bu leen neexee ngeen gëmm bu leen neexee ngeen weddi ma soxna si kon yaakaar naa ni duñu guddal waaw loolu leer na sëriñ Cheikh waaye li ma lay laaj mooy euh, reen yi boo koy jël naka nga koy jëlee mode euh, ni nga koy kiyee mode d'utilisation bi nan la par benn ngay jël wala par ñaari takk ngay jël wala par ñetti takk ngay jël <laughs> reen uh-huh. ku ko jënd mayewu ma nag pour mu leer ci bopp ñëpp mayewu ma ko de uh-huh. dama koy uti Saalum ci suma xam-xam uh-huh. indi ko Ndakaaru di ko yóbbu bitim réew di ko defar di ci dund di ci suturaal sama njaboot di ci faj sumay aajo ak mboolem ñi ma yaakaar kon nag bu ma kenn woo naan waaw nu muy demee ndax sénégalais moom noonu la mel ñenn ñi ñi ma ko sañ a wax dañoo bëgg lu yomb fekk nag lu yomb mënul mayee dara lekkitu kese du nax bëy wax ngeen ko ren yi képp koo xam ne nii jan nga ko waxuma nag ku may ñaan de indiwuma pour may képp koo xam ne jënd nga ko laa wax nii ngay def ren bi gis nga boo defee nii buum bi danga koy sànni nga indi bidon boo xam ne un litre la nga lenqali reen yi ba pare nga def ko ci bidon bi ba ndox bi toll nii nga tëj soo tëjee boo toogee ba ndékkee ba pare xellil kaasu ataaya nga naan soo añee nga naan kaasu ataaye soo reeree nga naan kaasu ataaye su fekkente ni da nga bëgg a joteeg sa soxna nag balaa ngay li ñuy wax euh, dernier butéel bi boo war a joteeg sa soxna naanal benn kaas su ko defee nag foo dematee ba ci kanam bañ a dellu ginnaaw rek jëlaatal beneen kaas foo demee ba ca kanam bañ a dellu ginnaaw rek jëlaatal beneen kaas noonu la ñuy defee. garab yi defe naa ne leer na waaw. waaw ci bëgg leeral lu ndaw la rek ndax bouteille bi euh, takk bi benn litre rek lay def wala litre bu litre bi jeexee da ngay dolliwaat beneen litre. Euh, li nga laaj am na solo lool palam ndox mi bu jeexee nga defaat deuxième bi comme ni mu toll woon deux fois lañ koy def muy deux litres ku mu neex itam nga def ko deux litres noonu rek continuer mais defal palam litre bi nga xam ne nii mooy yokk doole ju mag gi deuxième bi ñëw nekk secours noonu rek lañ koy jëfandikoo soxna si waaw jërëjëf. waaw léegi comme nee nga mbokk njóobeen yeeg njaayeen yi nga xam dañu bëgg lu yomb <laughs> ñoom buñ ci bëggee naka la def wecceku bi nag takk yi moom cher na wala yomb na. <laughs> waaw jërëjëf euh, garab yi xëy na ku ma oo ci numéro bi ci écran bi doo ma jot. wante comme man léeg-léeg damay xaw a jàpp te kenn dajul fépp ki may liggéeyalu ko oote di nga ko jot bu la jaayee dina la defaral rosi bu wane ne yow jaay nañu la garab temps seerul nag ndax lu baax kenn amul prime rawatina man suma garab seerul da ko waxee ne ñu ne waa ah, alors que ñoom li ñuy wax fii ak la ñuy wax fële wante képp ku jand suma garab bu la neexee nga foto rosi bi woon ko àdduna ne leen Cheikh Mbaye lii la koy jaayee su boobaa euh, kem ni ñu koy amee rek noonu lañu koy jaayee ndax léeg-léeg nga dem ci àll bi garab yomb su prix bi dina xéewale léeg nga dem ci àll bi garab xaw a jafe bu ñëwee yow tam nga yéegal si prix moo tax ci caméra bi nii duñ ci wax prix ndax boo demee mu jafe nga yokk ñu ne moom yokk na soo demee mu yomb nga wàññi ñu ne wàññi na kon daal li mën a xew mooy Kepu ku oote ci numéro bi ñu leen di jox ci écran bi ki yor ñiak yi ren yi nga gur tabarakallah day dolil di doli jigen di dimbali gur bu mu gaaw wacc delu ginaaw di dimbali jigen bu mu gaaw wacc delu ginaaw di dimbali gur ci bëgg sey di dimbali jigen ci bëgg sey di dimbali nit ci baña gaaw wacc di dimbali jigen kasalika. su boba bu wootee ci numéro boobu danañ ko wax ki koy joxe fi mu nekk ndax man tooguma benn place mënuma lu dul laawee leen biir réew nag boo fa nekkee amoo xaalis boo joxe soo amee xam-xam bu wér participer ko ci réew ma kon duma jeexal mukk te ñaanaluma waa sit bi Saloum Actu di sama sit di sama situ xarit di ñaan yàlla yokk ko di nuyu suñu caméraman sëñ sa Diop di jàmbaar joo xam ne Tabarakallah ligeyam ci rew mi rafetna di nuyu itam soxna ci madame sar di ñaanal yalla ci kaw seen yar ak seen teggin ak seen bëgg lu baax ak dimbali askan bi te lolu yonenti be ko wax dafa wax ni ku xam lu baax na nga fexé way tektel ko nit ñi su boba yi nit ñi am rek yow nga am ci bu ko upp ñu ne ko yonenti bi noko waxe mu ne adalu alal khairi kafa ilihi kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf Saloum Actu kon mbokki internetu salom Actu Serigne Cheikh ku ko bëgg a jot man nga woote ci 77 180 73 73 181 73 73 77 181 73 73 waaw 77 181 73 73 ku bëgg jot Serigne Cheikh fi nga koy jotee. kon mbokk internet ak Actu ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziaraat di leen wax di leen joxaat dig daje ba beneen yoon ci beneen émission incha allah yi ñu ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année kontaan nañu.